wala mu mel ni benn partie ci sa yaram dafa sensible nga koy desee sentir donc euh, loolu la ñuy wax euh, fourmillement donc euh, ñu koy euh, comme nu ma ko waxee léegi gis ci parti yu nga xam ne en fait tout le temps à la surface de la peau nga koy sentir doo ko sentir mu dugg bu baax a baax donc à la surface de la peau li nga xam ne nga koy gën a sentir nag mooy ci côté gémmiñ bi mooy les parties péribuccales mhm. les parties péri périanales mooy yi nga xam ne dafay nekk ci wati anus bi mhm. mais di ko ressentir surtout ci ci euh, zone génitale yi aussi bëri nañu ko si ressentir ñeneen aussi di ko ressentir comme nu ma ko waxee sànq si tànk yi si euh, benn côté yaram bi ci benn côté tànk bi si benn côté bopp bi mun nga ko ressentir fu nekk euh, fi nga xam ne nag da nga ko koy gën a ressentir eh, mooy si zone yi nga xam ne dafa am ay nerf donc ñu koy wax les zones innervées donc dafa bëri neer zone yooyu danga ko ci ressentir bu baax a baax donc bëri ay cause comme nu ma ko waxee sànq euh, mun nga tëdd yeewu euh, fekk yaa tëdd ci sa loxo bi donc euh, mu mu nga nga am ay picotement ay temps problème irrigation du cerveau nit moo tax tout le temps dañuy wax ni que nit bu yeewoo rek walla mu am besoin ci guddi gi rek jékki-jékki fi mu tëdd rek mu tëb jóg mm-hmm. parce que souvent le cerveau dafay am une petite anémie au coucher le soir mm-hmm. parce que da ngay tëdd pendant une longue période mm-hmm. donc problème d'irrigation dañ koy koy noté on appelle lane mi du cerveau d'ailleurs donc euh, nit ki warul rek bu jóg rek ne bëreet dem souvent da ngay gis boo ko defee dangay ngay xaw a miir genre yu demee noonu maintenant ku nga xam ne dara ku nga xam ne dara dalu ko mun na ko bañ a indil yenn problème yi mais ku nga xam ne dafay euh, doxantoot yenn hypertension yi entre autres mun na ko indil euh, des problèmes majeurs moo tax loolu aussi c'est important ñu si bàyyi xel li tax ma gën a indi sujet bi mooy euh, c'est révélateur de beaucoup de maladies souvent dans la plupart du temps c'est bénin pour ku nga xam ne amul benn feebar mais am na des moments yu nga xam ne euh, c'est révélateur donc euh, y a un syndrome bu nga xam ne du canal carpien lañ koy wax boobu aussi c'est une maladie bu nga xam ne dafa nécessiter une prise en charge ki nga xam ne daf ko am day faral di am fourmillement yooyu xam ne dama koy wax beneen nga xam ne aussi c'est important mooy euh, crise spasmophilie donc euh, souvent c'est bénin mais souvent nit ki bu amee yooyu fourmillement euh, baax na mu def test ndax xool ndax dafa spasmophile ou pas c'est important ñu ci bàyyi xel hypoglycémie euh, Jeanne je crois que <laughs> je te cite un exemple ñi nga xam ne dañu am hypoglycémie picotement yooyu souvent dañ koy xam donc hypoglycémie dañ koy xeeb en général mais nekk na lu nga xam ne une prise en charge daf ci war a am surtout une prise en charge d'urgence mooy borom quel que soit euh, tibu nit bi nga xam ne nekk na ko diabétique ou pas euh, na jël morceau de sucre wala tàngal bu nga xam ne c'est très sucré euh, mu mocc ko pour loolu dañ ci moom maintenant li nga xam ne moo gën a tax nag ma taxaw ci c' est les accidents vasculaires euh, mhm. cérébraux mhm. bi nga xam ne c' est à l'ordre du jour ñu bëri euh, parce que accident vasculaire cérébral moo tax sax ma waxtaanee euh, les les les fourmillements en fait parce que ñu bëri dañuy am accident vasculaire cérébral dafa nekk lu nga xam ne nit ki da koy am jour bi nga xam ne nit ki def na AVC bu nga xam ne indil na ko problème ba mun ci jëlee yenn gàllankoor yi fekk nit kooku noonu veille l'avant veille un mois avant defoon na AVC bu ndaw a ndaw a ndaw donc bàyyiwu si xel moo tax c'est toujours important nit di bàyyi xel ci yaramam parce que AVC du jékki-jékki rek nit ki am ko tey mu indi la problème tey képp ku def AVC rek ya a eu des boo xam ne defoon nga ko la plupart du temps nag ça se manifeste par des fourmillements mm. nga jékki-jékki sa benn côté yaram bi mel ni lu am fourmillement et c'est des choses yoo xam ne ça ne dure pas longtemps du passer une minute mm. donc danga naan ax ah, du dara fekk AVC moo lay yot une mm. semaine après ce même sujet dafay def AVC boo xam ne un vrai en tout cas AVC donc euh, wala keneen ku nga xam ne euh, dafay jóg mel ni bët bi dafa am fourmillement mu jékki-jékki rek benn bët benn côté bopp gisatul lu bëri jékki-jékki rek flu euh, une minute après flu boobu dañ mu nekkat en forme loolu c'est un signe précurseur souvent AVC donc yooyu yëpp nit yi nañ ko bàyyi xel wala keneen ku nga xam ne da ngay jóg rek Euh, nekkoon di waxtaan wala tëddoon wala en tout cas nekk ci benn position di jóg mel ni dañ la dóor dañ la pàdd nga am benn fourmillement bu ndaw loolu aussi c'est signe révélateur mun na nekk euh, un signe précurseur en tout cas euh, d'un AVC donc moo taxoon ma gën a indi sujet bi pour que nit yi di reconnaître au moins les signes de l'AVC parce que c'est à l'ordre du jour AVC dalatut ma kese AVC on a noté euh, beaucoup d'AVC chez les jeunes boo demee foofu ci hôpital Fann service de neurologie ay xale yu ndaw ñooy am ay AVC donc c'est toujours important nit ki di bàyyi xel ci yaramam lépp lu nga xam ne am na ko lu bokkul woon ci moom surtout les fourmillements boo koy am à répétition sax euh, nga jàpp ne c'est quelque de bénin c'est toujours important dem xooli médecin mm-hmm. dama am ay fourmillements nga expliquer ko côté bi nga xam ne da nga koy am mun na la defal euh, proposer en tout faire des analyses supplémentaires rek pour xam exactement lan la mais saa yoo ko amee mu durer une minute lu mu durer rek euh, waxtaan ci ak médecin parce que sa peut annoncer en tout cas benn AVC bu nga xam ne mu ngi waaj nit ki wala crise cardiaque aussi parce que souvent ñoo bokk euh, des manifestations précurseurs voilà. merci beaucoup mhm. Bintou mhm. merci am na solo kon képp mhm. ku sa yaram di ñorom daanati wala nga amee fourmillement ci tubaab euh, dawal hôpital nga dem saytu sa wér gu yaram fan c'est des signes annonciatrices yoo xamante ni képp ko am war ngaa mën a dem xool yi euh, fan la sa euh, santé toll merci beaucoup Bintou dinañu la euh, jotaat xam naa mercredi incha allah ci yeneen i chronique yu jëm ci wàllum santé Jeanne bëgg naa ñu ndoon nag clip bu Aminata mhm. histoire de faire découvrir vraiment mhm. kan mooy maître Yade voilà c'est kii la grande chanteuse bi nga xamante ni tey mhm. moom la ñu invité mu jógee fële ca Ndar laata ñuy dellu siwaat ci plateau ñoo ngi musu ci seytaane mi nga xam ne fu mu xajul rek lay dugg Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar une très belle vidéo bu ñëwaat peut-être sax ci contexte bi nga xamante ni moom la ñu nekk nii Jeanne ñu jugee ci ay élections mm-hmm. et macha allah tout s'est très bien passé ñu voté ko ci jàmm ak salaam peuple bi def seen choix euh, comme quoi que porteur de voix yi ñoom dañuy sóoraale lépp li nga xamante ni euh, mën naa xew ci am dëkk pour di ko way jottali ko askan macha allah loolu mooy rôle artiste mm-hmm. macha allah lii dañ ko génnoon en prélude mm-hmm. de ces élections là et par delà parce que du élections yi kese kese moo tax ñu wax ko mais dañuy fàttali suñu bopp rek ndax ñun tam nous sommes des citoyens sénégalais euh, am ay appartenance aussi am fu ñu bokk am ku ñu ku ñu bëgg suñu xol koo xam bu ñu sañoon mooy toog et tout mais ñu war xam ni rek l'intérêt supérieur de la nation moo war a primer sur tout le reste et que ñi fi nekk di xëccoo di jongante yépp jàmm rek la bëgg ci réew mi bëgg euh, réew mi émergent moo tax kenn ku nekk di